ah ci différentes dal yi nga xamante ne am na gis nañu ko ci mel ne soxna Ngoy Faal ah, Aliou Thioune ah moom i tamit ah, soxna Momi Kebe kon yooyu dafay jaadu rek ah, moom mu nekk koo xamante ne rek buy wax danu koy déglu bu baax a baax dañ koy duñu def dara rek dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a ñëwaat ak moom ci moment ñu ngi lay. waaw maa ngi lay fay di àdduna wërngal këpp Euh, di nuyu sama internet di nga xam ne dañ may seetaan ci Feeling Dakar di nuyu daa àdduna wërngal këpp di naanal kilifa dina ñaanal kilifa aada di ñaanal tam ñi feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp di ñaanal tam sëñ mu Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi te wér ak bépp kilifa diine boo xamante ni yaa ngi ci Sénégal di fi di ñaan toujours comme na ma daan ñaane rek Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm saxal fi jàmm. amiin la ñuy du ñuy dañuy ñëw rek ci ki nga xamante ne moom mooy Soxna Ngoy Fall ñu gis ko a chaque fois bu màggal Tuba amee rek xeetu takkaay yi nga xamante ne da koy amee daaw mu mu gàddu woon bës bi. Mm-hmm. ren tamit gisaat nañ ko mu génnaat ci ci façon boobu ban gis-gis nga am ci loolu. waaw macha allah alhamdulilah Adja Ngoy Fall moom kenn du ko présenté parce que yàlla mooy wane doomu aadama ci biddéewam nu mu toll. dañuy gis ni nit ku ku am wërsëg la macha allah nit ku yaatu duñ ko catu mu nekk soxna tamit du jabar soxna la yàlla wërsëgale ko borom kër xëy na amoon na yàlla weddi mu amaat xëy na seen wërsëg ànd ci la loolu jëkkëram di yëg boppam ca kaw la mu koy teralee ma gis ni tamit de vue du ko ma miin mu nekk nit koo xam ne ku bëgg ay doomu aadama la may gis tam ay nitu démbam di gis ay nitu tayam di gis nu muy teralee woy juram euh, dañuy kontaan ci am fierté jigéen boo xam ne mel na noonu parce que daaw am na yuñ ci defoon yoo xamante ni xëy na jotuñu woon am approche am mais bi ñu demee ba gën ko jege di ko xool di ko nemmeeku parce que nit nee nañ loo ko gën a jege rek gën koo xam di nga xam ne kii nit ku am ouverture la ci diggante ay nitam nit ku am kóllëre ci diggante ak ay nitam gàmm moom wala bu demee màggal da gis nit ñi niñ koy jegee nit ñi ni nga xamante ni noonu la noonu lañ koy wëree da ngay santi ne ay nitam yu ko jege la am na ay nitu démb tam am na ay nitu tey waaye dafa mën nitam parce que bu demee ba woote màggal Touba ay ñi fay ñëw yëpp duñu ay gan ay nit lañ ci moom parce que am ay gan ak am ay nit du benn damay gis ne ay nitam lay jëflanteel macha allah li muy takk tam or na jéeg bu ne bëgg na ko ku nekkit bu doon sa sago da ngay am borom kër gu mel ni Askia Touré macha allah mu teral la bégal la ci say diggi nawle te gis nañ ni boobu ba tey boroom këram ci loolu la nekk. Mhm. ñu koy ñaanal tam yàlla na ko yàlla lafal cat parce que lii day indi cat ci doomu aadama. gis nañ ni tam du lu muy bàyyi boppam noonu di teral boppam di teral ay doomam di teral ay sëtam. Mhm. ci takk or te nit amoo lu dul sa bis te bisu Serigne Touba bisu ñëpp la. Mhm. buñ demee ba woote jigéen war a mën a taxaw rek te bu taxawee dina sigil boppam sigil borom këram te borom këram tam moo ko njëkk a te gis nañu bisum bisub sëriñ Touba jar na lu ne lépp loo ci def rek wees na ko bernde yi war naa bari lépp war a bari teralante bi war a bari parce que doomu aadama dañu war a teralante ngir jëmmi sëriñ Touba te sëriñ Touba liggéey na lu ko ëpp képp kuy def rek na nga def te yàlla tax fexe jaam yi fa nekk nga bégal leen fexe li nga xam ne xëy na gëj nañ koo am bernde wala am loo xam ne xëy na sant yàlla gi des na ci ñoom mais buñ fa demee dañuy gis ñëpp sant nañ yàlla ñëpp bég nañ ñëpp kontaan nañ léegi ñi nga xamante ne ñoom euh, saabu Adja Ngoy génne wala ñu gis ay takkaayam rek muy détracteur détracteur am yi saa su dañuy génn di wax génnaat nañu di waxaat lan ngay wax ci loolu. waa damay gis ne doomu aadama ni sa dayoo toll ni sa am am toll noonu ngay solo parce que nit li nga am rek ngay sol oram am na ko daf koy takk xëy na moom dafa gis ne oram màggal rek la am occasion pour mën ko takk. ay nawleem dañuy ñëw ay am di jàmmam dañuy ñëw mu mu jaral ko xëy na alalam loolu la ci bëgg man xëy na sama alal leneen laa ci bëgg keneen alalam leneen la ci am na ñoo xam dañu préféré jënd ay kër ñi préféré ut leneen ak leneen ñii wut ay entreprise mais moom oram alalam oram la ci bëgg di ci solo nu mu ko neexee màggal bu jot mu wut ren gis nañ ko mu yor parasol boo xam ne or la def benn cheveux naturel coupe carré def ko or loolu daa ay xeetu mbégte loo xamante ni nit danga war di bég daal boo bu amour nekkee ci sa xol luy lay bégal rek ngay def te dañu gis ne jigéen dafa war a kontaan parce que bépp jigéen bu taxaw rek war ngaa mën a bégal sa bopp xëy na am na sax ñu fi nekk te yor ko waaye seen xol du loolu moo ci ne ak seen xel moom xëy na li mu am xelam ci or la ko yàlla xiir ci bëgg-bëggam or la gis na ni bu dajeek ay nawleem dafa leen war a bégal bégal boppam xolam sedd man ci anam boobu rek laa ko gisee parce que fii lu fi waay jaay rek gis ku la ko ëppale waaye nit ku nekkit na nga amee rek ngay duggee marché. Mm-hmm. ndax euh, moom euh, comme ni mu koy defee méngoo na ak li nga xamante ne moom la ñu woote muy màggal. waa màggalu Serigne Touba moom liñ ci woote mooy jàng alxuraan wàcce kaamil ñaan li fi Serigne Touba bàyyi loolu la mooy bu xasee ba 11h passé rek mi di màggal gi jeex na pour ñi nga xamante ni ñaan moo leen indi. ñeneen jigéen ñi itam boo gisee leen ci dugal lii du diine du leen du alxuraan sëriñ Tuubaa tam wootewu ko noonu waaye jigéen ñi rek fu ñu dugg rek def seen yëfu lii moom màggal wootewu ko parce que màggal wootewul sañse wootewul leen bernde yi moom màggal war na caa am parce que nit fu ñu jógee rek wocc lekk seen kër bu ñu ñëwee war nañ leen bégal sëriñ Tuubaa ëpp na loolu moo waral bernde yi nga xamante ni xëy na buñ koy gis sax xëy na at ba at lañ koy gis wala xeetu bernde yoo xam ne buñ ko gisee sax fa lañ ko mis gisee bu ñuy dem tam bu ñu gis buñu ñëwaatee foofu lañ ko fay fekk at moo tax bis bi loo ci def rek ci bernde jar na ko mais jigéen ñi tamit benn moment dañ ciy def loo xam ne sax xëy na day ëpp euh, day day dépasser limites yi nga xam ne moom lañ ci doon xaar parce que dañ seen xol la ñuy topp ba lépp loo xam ne xam nañ lii bu ko doomu aadama gisee ci bët rek kontaan ma samaak mu jot ci lekk ko wala mu mu jëfandikoo ko xolam sedd rek murit da koy jëfandikoo pour taali yi bëgg. bu ñu jógee ci ki nga xamante ne mooy soxna Ngoy Fall ñu gis beneen soxna di soxna Momy Kébé moom tamit gis nga ni mu màggale. waa soxna Momy tamit du ku ñuy présenté parce que buñ ne kuy sa baay ñu ne Njóga Kébé la foofu moom alal ba foofu la daj dëpp ki egg parce que du ko ndaw macha allah moom tam soxna la. parce que man li may nawee nit mooy ki ma gën gëm yàlla ki ma gën a dal parce que moom da nga koy gis euh, par rapport ak soxna Ngoy dafa dem ak simplicité du takk sax takkaay bu bari da koy gis du takk takkaay bu bari nit ku calme la tamit ñaari kaayu yu bokkul la parce que soxna moom yi xeetu mbet na bu nekk da nga koy gis këram macha allah moom it niñ ko bëggee ci taalibe rek daf koy defee dafay bégal jaam ñi nga xam ne dañ fay ñëw ay am di jàmmam tamit toujours ngay gis parce que kër yooyu ngay gis yëpp foofa dugg rek sa xol dina sedd parce que lépp lu warloo ci doomu aadama rek pour mu kontaan mu am mbégte boo fa duggee da sa nafsu bi dana ko dund. parce que da nga dund xol bu sedd da nga dund tamit sa biir fees. parce que màggalu Serigne Touba la ñu wax lépp luy xeet rek muy ganaar ba gëléem ba fa mu gën a kawee bàyyiwuñu dara lépp day ñëw ci màggal gi xeetu naan xeetu lekk lépp lu ci doomu aadama yi yittewoo rek. bu kerogee sa bakkan bi dina ci bëgg moo waral ne soxna moomi kebe kenn du moom da ngay gis tey autorités yi nga xam ne dañu nekk Sénégal yo dañuy dañuy ñëw kër soxna Momy parce que moom itam dafa baaxoo di liggéeyal Serigne Touba di di di ko manifester ci màggal gi parce que moom li ñuy manifester seen bëgg Serigne Touba mooy def ay bernde ay nit ñëw ñu di leen teral tamit di yëkkati seen alal di leen may soxna Momy Kébé moom xam nañ ci moom loolu parce que même bu dee xam nañ ko de loin tamit dañu gis ay nit ñuy teral di leen defal lu baax. ok bi ñuy rebondir rek ñu ñëwaat ba fi nga xamante ne mooy diwaanu Mbour. Medinatu Salaam gis nañ fa kenn tamit ci soxna Cheikh Béthio Thioune di soxna Aïda Saliou ah, moom tamit ñu gis ko bien vrai que coow yi am ak yooyu yëpp moom biir këram fa la wootee màggal ko riche macha allah naka nga gisee loolu tamit. waaw soxna Aida Saliou tam moom soxna la boo xam ne ba Cheikh Béthio dëddoo ba tey dafa nekk ci liggéey Cheikh Béthio dëgg la sëñ sëñ Saliou cuun gël tàppe mooy xalifa Cheikh Béthio waaye moom it daanaka mën nañu wax ni ba mu toogee ba tey jugut mu ngi liggéey liggéey bu baax parce que tey sa borom kër bu la boolee ak nit parce que da ngay gis ñu bëri dañ naan man soxna Aida Saliou daf ma boole woon ak Cheikh Béthio daf dama ko def yaay dama ko def sama wasila sama sëriñ parce que lépp lu Cheikh Béthio warloo woon ak ñoom daf koy def parce que man dama approché ay taalibe Cheikh Béthio yoo xam ne euh, dañu doon ndénkaane soxna Aïda Saliou te boobu ba tey la ko Cheikh Béthio bàyyi woon da caa ne di leen yor di leen toppatoo lépp luy xeetoog xeetu bernde lépp lu xeetoo tamit mu jiital leen di leen woon yoon tamit da cee ne donte nag jigéen du jiite waaye nit ku nekk ak la yàlla jagleel du lu ñuy forcer parce que bu Cheikh Béthio nekk man may yow yaay man da lépp lu ma mën a nekk rek nekk ci parce que baat bi am na ñoo xam ne mënuñu xàmmee baatu lu mu doon lépp lu Cheikh Béthio waroon def rek war na cee taxaw pour di ko def di taxaw Cheikh Béthio dafa nekkoon ku social di jàpp ay doomi jàmbur di leen defal loo xamante ni xëy na sa ndey ak san baay jur nañ leen jur kenn du ko naatable ay dara amul dara lu mu denn lool waaye daf leen taxaw socialement di leen jàppale di di leen daggal bi ñuy tukki man moom personnellement du ma wax lu ma xamul ay taalibe man façon nit bu nekk laa xal ku ne laay jàpp laay kon lépp lu ma wax rek preuve à l'appui dama cee teg sama bët mu dugg sama noppit may wax ak nit gémmiñ ak nopp kon du ma wax lu ma leerul te Cheikh da soxna Aïda Diallo boobu ba tey mi ngi ci loolu mi ngi taxaw taalibe yi euh, ba ko sëñ Muntaxa tere tam Touba gis nañ mu mu rey ay nagam def léppam def ay sobleem ak pombiteeram ne taalibe ku ci nekk la nga yellool nga ñëw jël ko nga nga mag nga gàmm wala nga màggal bu dee ti ni woote na ko sax te ndaje amut dina ko def te yàlla rek tax ku ne mu jël la nga xam ne moom nga yellool mu jox la ko nga bëggal sa njaboot bégal sa bopp ngir jëmmi Cheikh Cheikh Béthio Thioune gis nañu tamit ñi nga xamante ne ay wujjam lañu mooy soxna Botoor ak soxna Adja ñoom itamit dañu ànd ak moom ci liggéey boobu boo boo yi nga xam li nga xamante ne gis nañ ko ci ay image sax wala ñu am ko fa sax macha allah dafa dafa rafet tubaar fa kàllaama ci diggante moom ak ay wujjo mm-hmm. waa loolu relation boo xam ne dañ ko tiise la xëy na moom moo leen ubbil bunt parce que boo gisee façon nit xol bi yaatu rek mbooloo ku yaatuwul xol mënu koo yor mbooloo ku koo xamante ni sa rafetul doo mën a àttan mbooloo yàlla képp ko xolam yaatu mën na la dénk mbooloo te lu mbooloo may bari bari ku ci nekk bu toogee danga naan man la gën a bëgg te soxna Aida ci loolu lay dox xëy na yàlla nag moo yor gi pay moom moo xam ku nekk la nga xam ne bëgg na la koo fay te bu dee danga ko def te yàlla tax rek da la koy fay te yaakaar nañu bépp luy def tamit day def ngir yàlla rek tax ngir sa jëmmi Cheikh Béthio nekkatu fi tey mais yëkkati ñam jox doomu aadama rek muy soxna Aida Saliou muy soxna moomi muy Adja Ngoy ngay taral ay nit te yàlla rek tax yàlla di la koy delloo di la ko fay parce que Sénégal métti na métti goo xamante ni tey am na ñu bëri mënaluñ seen bopp. te Cheikh Béthio tey Medinatu Salaam dafa dagg ay parcelle woo ay taalibeem yoo xam ne xëy na seen loxo jotewut seen ginnaaw mu dagg fa. soxna Aida tam noonu la ñëwee ut këram tabax jege leen di leen nemmeeku di leen saytu lu baax ak lu naqareek lu war a naqar yi mu bokk ak ñoom. lépp lu mu am bokk ñoom te jaamu yàlla tam mënta weesu loolu nit ñi buñ koo buñ ko jugé ci jëmmam nuñ ko jugé ci jëfam yàlla sax jëf lay jugé te man nit su ma lay jàpp sa jëf laa lay jàppee duma la jàppee parce que yow mi ayda jigéen nga dangaa takk cheveux wala di nañu xool foowu nit ki yàlla foowu nit ki la gën jugé ka jëmm ji parce que lépp looy def tam sa jëmm sa jëf moo ko gën sa wax bu méngoo ak sa jëf mu gën te jëf bu gën moom la yàlla di jugé moom la gërëm te lépp loo def rek dimbalee ko doomu aadama surtout jox nit ku xiif mu lekk wala nga taxaw ko ca ba mu amee jafe-jafe boo ko defee yàlla dina la taxaw fu kenn nekk te soxna Aïda Saliou macha allah dañ koy gis muy dox ci social am na ci yoo xam ne sax ñoom dañ koy def ak keneen ak keneen da koy def moo tax nit ki gën mooy nit ki nga xam ne da nga yëkkati sa alal di ko jox ay taalibe surtout boo ne murit nga wala foo mënta bokk nga ñëw parce que gis naa tey benn jour Pawlish Mbaye ñëw fa Pawlish taalibe tiijaan la mais képp ku mu gis na lay teral te loolu moo am solo Touba amul Tijaan amul Murit amul Laayeen Serigne Touba moo woote te Serigne Touba la mu woote ëpp na ñu ne kii Murit la Sénégal ñëpp bokk chrétien sax day dem Touba Serigne Touba moo liggéey loolu moo tax màggal bu ñu mesurer à que kenn man fii laa bokk. mën nañu wax ne Touba ña fa bëri sax duñu ay murit l'ensemble de l'islam ñooy daje tuubaa te macha allah noonu la fa ñëpp di bëggee ku fa dem rek sa xol dina sedd waa am na ci nag ay exception yoo xam ne xëy na am nañu cay demee lu ca bokkul mais soxna yi daal tubaarkàlla lañ leen di wax di leen ñaana yàlla gudd fa ak mbékk ak yàlla yàggal leen seen taxawaay ba lépp lu ñu doon mën ren rek ñu koy mën ay déwén yu bari parce que màggal gi tamit jar na lu ne Serigne Touba jar na lu ne xeexal na l'islam jaay dundam jëndee ko tey neex-neex bii tey ñuy dund tey Serigne Touba daf ko jaayee dundam pour nit ñi mën a am jàmm parce que tey bu jaayuloon boppam tubaab bi dund te yàlla tax jaay boppam ci loolu kon tey lii ñuy dund nii neex-neex bi bu nekkul woon Serigne Touba jaay na ko ñun dina fekk tubaab ba tey mu ngi yeew buum ci baat di ñu mbugal te sëriñ Touba dafa jëndee àddunaam diine lislaam ba suñ borom fayee ko lii loolu moo waral tey lépp luñ ci dund xeetu neex-neex. nañ ko sante yàlla bu baax a baax te xam ne yàlla may na ko nam ci kaw tubaab bi. waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki internet yi ñu doon seetaan. waaw maa ngi tàggu sama auditeur ak auditrice yi nga xam ne dañu nekk ci internet Feeling Dakar yi ñoom ci seen bopp nga xam ne man dama dañ maa yëg dama leen a te lépp lu ma wax dañ may déglu à travers tout le monde yëg-yëg bi ngeen am ci man. lu ma xam la man tam loolu laay yëg ci yéen parce que à chaque fois ku ma ci mën a jot téléphone rek dangay wax man ba sama yaram daw comme yéen ñëpp sant naa leen gërëm naa leen tax dooley jën ndox nit bu demee ba am doole nit ñi di ko topp di ko seetaan ba nga am sa doole te yëgoo sax sa bopp doo ko yëg parce que dangay santaat yàlla parce que yàlla bu la amee num la tollal nga am foo toll te doo ci bajantu doo ci tëgg dënd rek dangaa war a sant yàlla dañuy ñaan yàlla mu xiir ñu ci boppam te ñu bañ a beew benn yoon ci li nga xam ne sunu borom may nañ ko ci xam-xam te duñ ci duñ ci damoo ñu ngi santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant kilifa diine di ñaanal tam sëriñ Touba lépp loo xamante ni liggéey na ko ci diine rek sunu borom nag ko dencal fay ko ko. fay ko tam njabootam ak képp ku ko yaakaar ak képp koo xam ne yaa ngi dem ci màggal gi wala demoo ngay bëggee liggéey Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal ñëpp di sant di gërëm. di ñaan yàlla ñu teewe màggal gi at yu baree bari bari bari di sant tam képp koo xam ne jël nga sa alal def ko ci màggal te yàlla rek tax nga taxaw bégal ay doomu aadama seral seen xol ñii am na ñoo xam ne dañuy génne ay paasu màggal di joxe ku ci nekk rek lépp loo ci def te yàlla rek tax yàlla ko sunu borom yombalal déwén ñi dem tamit te fekkewuñu du seen ñàkk faydu da dara ku ci nekk rek sunu borom bu la soxlaa yóbbu la ñu fi nekkit yàlla leen yàlla yàgg teew di fekke te di ko def ni ko sëriñ Touba bëggee jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp sant naa ñëpp gërëm ñëpp di la ñaanal tamit yàlla defal tawfiix sa liggéey yàlla yokk la yokk ñëpp ñi nga xamante ni am nañ yaakaar ci Feeling jërëjëf. mbégte ak contentement la ñu amoon saa ne suñuy toog ak euh, moom di ko dekk suñu micro muy wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy internetu Feeling Dakar ñi ngi leen di béggee bu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.